ah président ne waaye nag yàllaa ko xëcc loo ñu waxtaan waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles ministère de l' intérieur en tout cas président intérieur bi ma lan la woon mais ko ragal ba loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ma daal il nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu moo la gënal man amatuma choix avec votre soutien, je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc, on a d'abord lié. Donc, on a peur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbok auditeur yi yéen ngi deglu sen émission l'info autrement tey du mercredi le 1er décembre 2021 ñu dem déglu revue de presse bi dellu si léegi li ëttu yéenekaay yi xëyee tey ngeen koy am bés bu yàlla sàkk fii nii ci rajo suñu kër FM ci ci biir émission bi di l'info autrement altine jàpp alxemes bu 16h jotee li ci yéenekaay yi ñu fas yéene ci ànd ak Mouhamadou Junior Cissé dëlleen ak jàmm mbaa yéen a nga ca xiroo ak ŋaayoo gi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci mim réew ñu toftal ci ab violence boo xamante ni bu jéggi dayo la yéenekaay bi di la nañu violence période électorale ab mal boo xamante ni bu chronique la ci mim réew maanaam ci gàttal yàgg nañ kaa nemmeeku mu doon mbir moo xamante ni war nañ cee mën a jóg ci noo rek dina jur musiba ci mim réew yéenekaay bi naan ñu su fekkee ne njiitu réew mi Macky Sall daal dinay daloo li nga xamante ni moom moo di charte non violence ba ca weneen wàll wa Ousmane Sonko ki ñooñam kañ daal dinañ koy dàq wax ne duñ ci laale benn yoon Cheikh Ibrahima Niang doon ab anthropologue di xamle ne société bi moom moo violente waaye itamit yemu ca ndax ay dynamique de violence moom moo ko daal di traversé as bi bu réew mi daal di xam leen ne violence bi kañ lu koy gën a amplifier maanaam lu koy yokk du ñenn ñu dul responsable politique yi te bu ñuy dem ci seen tooxi doona yi dañuy yóbbaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ndaw mi yéenekaay bi di Les Échos naan ñu violence politique yi ci miim réew mi kañ du ñenn ñu dul politique yi ñoom ñoo ñooñee sax la ñuy joxeñ baaraamu tuuma Fatou Sow Sarr naan yi politique mbala sax ci pouvoir wi ñoom ñëpp a yem mburu foofu ko fëriñ fitna rek la ñuy wër suba ba ngoon jote li nu mel sax moom moo tax ba jamono ji Sénégal moom dafa mel ni dafa toog ci poudrière benn brin almet rek boo ko kosee lépp daal di tàq am satu sow si ci biir yéenekaay bi ba tey mu naan ñu idéologie wu mbedd mi la moom mooy dox jamono ji ci idéologie fonctionnelle manaam ci gàttal la xeex maanaam ci gàttal doole ak xeer ak defante lu stratégie yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu ba defar gox yi lal ko ci xel mu sell Mamadou Diop Decroix mel ni que ni day teggi naan société sénégalaise bi moom moo violente wante acteur politique yi ñoom laale wuñ ci dara jam yi la naan ñu mbir mi bu yeggee fii du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall moom mi nga xamante ni dafa jël réew mi moomale ko boppam ndax booy xool jamono ji résultat élection locale yi mi ngi ci taabalam bi toog di ko xaar bokkul ci démocratie di ñëwaat di càmbar réew mi niki tey naan ñu gréew ñii di transporteurs yi enseignants yi étudiants yi ak ñi nga xamante ni ñoom lañ génnee woon seen kër ca bañi tabax li nga xamante ni moom moo di autoroute yeeg train express régional bi ñoom ñëpp mer lañ fanaanoo tànk ko ko seen loxo yéenekaay bi di ñu xamal ne daañu arrêté liggéey yu nu mel ngir rek jàmmaarloo ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité yi grève de la faim yi mel ni tout léeg Mali mu ñeel étudiants yi ci université virtuelle yi ñii di publiciste yi moom jamono ji maire ba futu lañ def Mansour Faye Cheikh Oumar Anne Abdoulaye Diouf Sarr ba ci Abdoulaye Sow ñoom ñooñee nga xamante ni ñoom ñoo di jëwriñ yi nu mel ñoom la mbir mi soxal la war nañ xoolaat seen toogalin ngir rekk askan wi mën a gis seen bopp keneen ki nga xamante ni gisagul boppam ci justice bi du kenn ku dul Barthélemy Diaz yéenekaay bi di alerte quotidien naan ñu Barthélemy Diaz ñi ki tey la war a janoo ko juge bi awokayam jamono ji kan ñu ngi amal liggéey bu jéggi dayo ngir rek fexe ba Barthélemy Diaz mu mën a génn ak ndam ci mbir mi nu mel mbir moomee nga xamante ni moom moo affaire bu faatu pa njaga juufa te Barthélemy Diaz faatoon ko fi si yéenikaay bi di Sud Quotidien naan ñu avis de tempête sur Ndakaaru ndax tey lañuy amal procès Barthélemy Diaz niki àllarba gi ndax dañu ko atim déet waaye itamit ndax nit ñi dañu ànd ak seen sagom déet ak lum ci mën ci doon yéenekaay bii di Vox Populi mi ngi ñëwaat ci leneen naan ñu Barthélemy Dias kañ boo moyul mën na cité comme témoin kii di njiitu réew mi Macky Sall mu ñëw seedeel ko ci mbir boo xamante ni booy xool dañ ko tooña mu mel ni que ni mbir mi kañ artu la rek beneen artu yaa ngi koy fekk yi ci biir yéenekaay bi di laas mu ñu xamal ne Sénégal jamono ji ci lu jëm ci xeex variant bii di Omicron daal dina ñi nekk alerte maximale maanaam ci gàttal lépp loo xamante ne matuwaay la daal dinañ koy ñëwaat yéenekaay bi di Le Quotidien naan ñu covid 19 propagation ak nouveau variant bi nga xamante ni daal dinañ koy nemmeeku ci sunu gaal daal dinañuy fermer porte yi maanaam bunt yi lañ tëj ràpp yéenekaay bi di Omicron yéenekaay bi duñu xamal ne comité national de gestion wu épidémie daal dinañuy réactiver waat lii di dispositif prise en charge bi beneen dispositif bi nga xamante ni ñu ngi koy jël mu ngi ci biir yéenekaay bi di Les Échos naan ñu lutte yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci journal yi lu neex waay def ab commission lañ daal di amal ku ko jiite du kenn ku dul Ismaïla Madior Fall ngir rek ñu daal di càmbar ay texte ngir ñu mën a rëq ndigg nii ñi nga xamante ni ñoom ñooy def ñaw fi nu mel ci réseau sociaux yi leneen lu demul dikkul mi ngi ci biir yéenekaay bii di évidence mu ñuy xamal ne dakaar dem dikk kañ jamono ji demul bay dikk ndax ci jafe-jafe dëgg lañ nekk yéenekaay bi di ñu xamal gis nga DG bu yees bi bañ ko sampee ci këru liggéeyukaay boobee li nga xamante ni dox na ndax lépp taxaw mu mel ni que ni moom moomee di DG bu yees bi xamul fu muy teg tànkam ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi doon teg seen tànk ci biir luubal ñu ngi ci biir yéenekaay bi di libération mu ñuy xamal ne ab scandale dëgg lañ nemmeeku ci biir këru liggéeyukaay bi di la post maanaam mafia goo xamante ne depuis fukki ak benn ñu ngi koy nemmeeku ci kër gi nu mel yéenekaay bi naa ñu service post bi moom ma warutoon mën a umpable ab business dangereux bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ci kër gi nu douane ñoom ñoo kase filière bi sûreté urbaine bi chargé wu ci li nga xamante ni moom moo di pour poursuite bi def ay investigation ay commande garab yoo xamante ni teguwul ci yoon waaye itamit jaaduwul ay mbir yoo xamante ni yu jéggi dayo la mu mel ni que ni mi ngi doon xewee ci biir kër googu ni la poste yéenekaay bi di réew mi quotidien naan ñu bàyyi naa libération songu yéenekaay bi di réew mi quotidien naan ñu ab drame dëgg moom moo am fële sa Scat Urbam ak sa diwaanu mu ñuy xamal benn soxna moom faat ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay seexam ak yaayam ba noppi bëggoon xaru soxna si bañ ko laajee dafa xam leen ni jinne yi ñoo ko laaj bakkanu ñaari doomam yooyee ak bakkanu yaayam yéenekaay bi naan ñu sa diwaanu Rufisque moom musiba dëgg ma ma fa xew ndax benn téye moom moo daal di téye kanamu ndaw si nga xamante ne moom la doon génna la jël peeru ciseau daal di koy jamate ba kenn xamul lu muy nduróo la daal di koy jamate ba raw tamaate buñ rosi ñeneen ñu nekk ci jafe-jafe ñu ci biir yéenekaay bi di le témoin mu ñuy xamal ne jamono ji ci mim réew mbaam xuux amatu fi mbala sax bëriwul noonu li nu mel tax ba opération mbaam xuux bi nga xamante ne amaloon nañ ko mujjewuta jur saafara ndax jàppal ñàkku mbaam xuux bi lu ko wund du lenn lu dul mbaam xuux yi nga xamante ni ñu ngi koy jël génne ko ci mim réew di ko jaay fële sa Guinée Bissau yéenikaay bi di ñu xamal ca diwaanu Ndakaaru njiitu réew mi Macky Sall annoncé woon opération mbaam xuux bi ngir rek jàppale communauté chrétienne yi ñu mën a amal seeni feet ci anam yu mucc ay waaye itamit lekk ndawal la wante dafa mel ni que ni ñi di waa Guinée Bissau bàyyee wuñ ko waa Sénégal benn yoon ndax ñoom ñooñee ñoom ñoo gën a yiitewoo fuufa ndawalu mbaam xuux bi mu ngoog ku nekk ak problème Fallou Galass te yéen ba mbokk auditeurs yi ñu leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di len ak di len dilen di len ñaanal jamm di ko ñaanal sen jabot di nuyu sénégalais yi nekk fofu ci Europe ñi nekk ci amerique ñi nekk ci Canada ñi nekk fi ci Sud amerique ak ñi nekk en Afrique di nuyu aussi ñi nga xamantene ño ñoo nekk Sénégal te surtout doga découvrir liggéey bi ñuy liggéey ñu jot ci ay feedback yu bare bare bare bare di gërëm ñooñu ci wax yu rafet yi yi nga xamante ne wax nañ ko jëmmale ko suñu jëmm yi muy ñii di intervenir ñëpp ci rajo bi di ay borom xam-xam ndax waxtaan wi ñuy waxtaan wuute na ak wax sa xalaat rek yi nga xam ne moom mooy xew ci rajo yi nga xam ne day mel ni tulleeg màlle amul sujet bi ñu koy njëkk a def ci réew mi ñëpp dañoo yaakaaroon ne sax ne réew mi day tàkk boobu kenn daawul découvrir meru nit ñi seen frustration daawuñu ko sóoraale man maa ngi fàttaliku ba may njëkk a wax ca ci rajo ba may njëkk a jël sama téléphone woote ci rajo di wax mun naa la wax date bi ah ca 1998 la waaw ci benn émission boo xamante ne su ma juumulee Sud FM la amoon mu amoon loo xam ne dama ko seetlu ci réew mi jamono jooju mooy fecc rek lañ doon def promotion bi comme tey ni ñu defee promotion mbirum comédie nga xam ne même dans la lutte soo buggee nit ñi gën la déglu rek da nga ciy boole comédie bu ko defee gars yi bañ la jàpp au sérieux parce que frustration bu bëree ci ay nit day dem ba day sérieux ba mu ëpp quoi da ngay bëgg relax donc da ngay bañ a jël affaire bi mu sérieux trop foo sérieux trop sax dañ lay wax yaa ngi wax ba sa sidditu baat yi di jóg ñuy def promotion fecc yeeg nga xam ne bu ñuy inaugurer dara sax ay fecc ak ay waay rek moo fay xew comme ni nu koy defee tey rek ni ma ko waxee ci biir ci biir réseaux sociaux yeeg même boo dee combattre Macky Sall faa nga boole ci ay ay ay comédie te loolu moo bàyyi ñiy nekk ci télé yi tey di wax seen frustration d'une autre manière il faut ñu jaare ko comédie pour que ñu bañ leen prendre au sérieux parce que jimbiri jimboori wala jimbiri lépp loo jàpp au sérieux rek mu def ne ci kawam nga jëm ñii nga xamante ne ñooy lekk tey tey noos ci réew mi lépp lu sérieux rek bu sa wax dëgëree sax même bu fekkee li ngay wax àndul ak am xam-xam bu dëgëree rek ñu defe ne seen kaw nga jëm ci année yooyu en tant que élève sax laay wax maa ngi juum damaa juum ne 98 mais c'était en deux en 1996 baal leen ma damaa juum parce que après laa commencé nag rek teppeeku may déglu Sud FM en 1996 ma jekki-jekki jël téléphone fa ma newoon woote Sud FM participer bi ma participer boobu nga xam ne rajo yi barewuñu ña ko déggoon ñëpp dégg sama tur na ah Ndiawar dégg naa li nga wax ci rajo bi li nga wax wax na deug li wala la ñen ñi di la encourager mais ñeneen ñi dañu lay tiital yi boko day wax xam nga da ngay indil sa bop ay danger xam nga ñun sénégalais dañoo ragal ba nga xamantene ñun suñu droit sax soko naré wax gaay dañu lay tiital quoi pour nga nopi ñi ma tiitaloon ñoo upp ñi ma ca jamono joju nga xam jabaro Abdou Diouf la ca jamono ja nga xamantene ay commissaire la ñuy rey sànni leen ca mamel ba ñu wàcc ca jamono jooju la ñuy jàppee ay ñu contre nguur gi walla waa PS di xeex ay courant yu bokkul ñuy dóor nit ba mu dee am na ci sama benn grand boo xam ne noonu lañ ko ko defoon HLM 1 ñëpp xam nañ ko du ma wax turam te boobu diggante ay ñoom Ayda Jong mii ak yeneeni groupe la woon ñoo xam ne ñoom ñëpp waa PS lañu ca aslam 1 ñuy xee ñuy xeexante di doorante am na ci góor goo xamante ne dañ koo door ba feebar yi bi mu jaar bay dee daanaka ci la jóge dafa mujj jeex takk violence ci moment yooyu la woon lañ la ñu njëkk a intervenir ñu ti nit ñi tiit ndax dangay ragal a wax da ngay wax léegi ci politique te li ngay wax kat mooy li nga sentir réew mi mooy réew moo xamante ne boo waxee li nga sentir parce que dafa am fenn foo xam ne rek foofu la ñu ko xaar waaw mooy ñooñu nag mooy ñi am ginnaaw ñi am ginnaaw ñoom la ñu yaakaar ñu ñuy waxal soo amulee mbooloo amuloo ku la xeexal loolu moo tax ñuy wax Sénégal poli politique rapport de force la politique rapport de force la Sénégal la xew en Afrique la xew gars yi rapport de force bi ñuy wax dans la réelle politique du rapport de force bi ngeen di di wax di wax ni dem leen ngeen ngeen jàngiwaat ko gars yi mën nañ leen ko jàngal nag rapport de force boobu ñuy wax du rapport de force bii ngeen di ngeen di band seen muscle du moom ca liggéey sur le terrain la ca mobilisation des militants la ca jàppale askan wi la am na fan yële benn soxna su baax ku ma woo mu ne ma mais xam nga man Sénégal lan moo ma jaaxal ma ne ko ah mu ne ma opposition bi ñoom dañu bëgg a bàyyi ba nekk ñekk ci nguur gi bëgg a dimbale waa réew mi mais ñoom bu ñu soxlaa xaalis dañuy def ay ket daal di jëkkati ay millions yu bari ñu am ko ay centaine de millions te pourtant loolu duñ ko def ci ci askan wi seen militants yi lañu koy def wax na dëgg wax na dëgg waaye aussi boo ko analyser ci ci benn yoon bu gën a yaatu mooy bu fekkoon nguur gi day defar sénégalais yëpp te amu ci xàjj ak seen xëy na ñooñu duñu gis di mobiliser ay xaalis boo xam ne ci seen leader bi rek si ci fonctionnement mouvement wu seen leader lañu koy teg bu bo donc dana woon mën a dajale xaalis ne askanu nangam sàngam de comme que ñoom dañuy ñàkk ndox nañu leen gasal teen nañ leen gasal teen américain xam nga am na ay puits américain yoo xam ne boo ko defee mën nga fa def benn panneau solaire muy génn ndox nit ñi di naan te loolu politiciens yi opposition yi mënoon nañu koy def ah mënoon nañu koy def te seerul ah seerul soo dépensé ba dépensé benn million nga ciy dépensé te boo doonee parti politique gars yi mën nañ la ko defal lu gën a yomb ñoom ñu doon ay opposant dem ci coins les plus reculés du pays ni ñuy dajalee xaalis dañuy dañuy Ousmane Sonko ak campagne wala Barthélemy Diaz wala Abdoul Mbaye dajale bu bari né dañ koy jox ñom Abdoul ak ñom ak dajale alal def ay ket dañ dañuy dem tel gox ñom dañu am problème ndox mi yeggu fa ñu gasal leen teen américain mais ñooñu gox boobu xam nga ni boo leen ko defalee mais ñooñu dañu naan kii toogagul mu ngi ñuy jàppale dañu koy dañu dañu lay jàppale dama leen di won rek ay yoon xëy na xam ngeen ko sax mais li ñuy li soxna si wax dëgg la li ñuy joxe suñu doole yëpp mooy dajale ay alal parce que benn waay day dem procès loolu perte xaalis la dajale xaalis ba pare pour benn procès dajale xaalis pour benn tournée tournée boo xamante ne ay wax ak dénonciation rek nga fay def c'est pas de la politique perte de temps la parce que ñi la ëpp moyen bu ñu ñëwee dañu te nekk ci nguur gi dañuy wax ba pare joxe dara yéen na ngeen defe ne Macky Sall porte à porte ya mu doon def ci ay jamono avant 2012 boobu milliardaire la bu ngeen xamul bu demee fenn dafay joxe dara waaw na ko xam nag na ko xam dafay joxe dara yéen nag xamu leen ko ngeen di wër rek di wax naan ay am na ci benn waay bu ma ci waxoon naan li Macky Sall di def laay def mu toll ni maa ngi wër Sénégal bi yëpp te amul dara kat ngeen defe ay waxi neen lekkati kese naxu lu bëy lekkati kese naxu lu bëy

bu ngeen demee ci ñooñu dangeen ngeen li di wutal ay yoonu xeex bu dee yoonu tribunal la ngeen wutal leen ay avocat ñu xeex seen suuf la ñu jël wutal leen leen ay awaka boole ko nag ak xeex bi sur le terrain noonu lay demee wala ngeen may leen wala ngeen may leen ñoom ay vivre bu fekkee moom lañu ñu soxla amuñu ndox ngeen may leen ndox amuñu courant ngeen lijjanti ay panneaux solaires may leen ko parce que nag boo ma joxee man mii di wax nii aw ma lu bari mais bu ma ñëwoon toog fi naan bu ngeen ma jox bu ngeen ma joxee réew mi ma tala tala leen ay tali dañuy bàyyi ba ñu jox ma réew mi réew mi ku ñu ko jox te defaloo liggéey bu baax yow la neex ndax alalu alalu kër gi yëpp lañu lay jox mooy kër gi mooy Sénégal pourquoi nga bëgg ma ne ma bàyyil ba nga jox ma ko ma lay doog a defal wan ma li nga mën léegi ma xool Il parenthèse la won rewmi dafa tollu ci une situation bu doy war bo xamantene ne na réflexion yu bari ndax niko ko revue de presse bi rek ci poudrière lañu tok ben étincelle rek mën na rewmi ndax frustration bu bari ndax gu bari mer gu bari te loolu yéen a ngi koy gis ci fait journalier fait quotidien yi nga xamante ne moom mooy xew fait divers yi nit ñi dañuy frustré ba mënatuñu mu muñal seeni jëkkër jëkkër yi frustré ñàkk dépense ñàkk liggéey ñàkk coono ba jël ko teg ko seeni jabar yi ñu ne la dina am 435 divorce par jour loolu mooy moyenne bi mooy bu ñu calculer at mi ba mu jeex ñu diviser ko nee nañ la bis bu nekk nangam lii mooy divorcé waaye ni ñuy divorcé la ñuy takkee sans compter takk suuf yeeg ak tasu suuf yi parce que tam euh, ni ku l'être humain yàlla di koo bind pour muy muy couple couple nag ak la ca biir ku ci nekk da ngay soxla sa bopp gars yi ragal yàlla yi dañuy takk ñi ragalul yàlla ñi ngi ci leneen bu ñu la waxee ne quatre cent 30 et quelque ñooy divorcé par jour lolu moy ñi nga xam ño tak officiellement tas officiellement waaye amna ño ñoo amuñu besoin tak liñu waron am ci sey yep ñu koy am ci vie normale ragaluñu yalla ragaluñu bible yalla boko waxe rek jeexna ndax religion chrétienne bi da fay digle mariage frustration bi bari bari go xamante ñi nekk ci wujjëkkali politique bi mer population bi kenn sóoraalewu leen loolu yëpp doon ay frustration te manifesté wu na ci événement yi xewoon mois de mars colère noire bi nekk ci xolu nit ñi créer iñaan ba nit ñi di reyante ku ci nekk defe na na sa morom su amee problème yow nga kontaan ci parce que mu ngi ci problème wala tamit nga découvrir ne du yow rek yaa am problème mu nekk un un ouf de soulagement parce que da ngay defe ne monde bi yëpp ci sa kaw la ñu ko teg nga gis ay nit ñuy am ay problème ngay kontaan defe du yow kese ñenn ñi di gi amuñu beneen solution bu dul lu dul dañuy xaru ne dañuy rey seen bopp parce que mënatuñ ko def parce que yalla da leen a parce que loolu xaru ñàkk gëm yàlla la yàlla nañ si yàlla musal yàlla bu ñu bu ñu ñu yàlla nattu ci ñooñu ñaawaluñu leen waaye dañuy jàngale rek ñii di rey bëgg rey seen doom xoolal likiñu ki ñu jàpp ca skat ibbaam mu nar a rey ñaari ñaari euh, seexam yi ak yaayam nee na jinne jinne moo ko sant pour mu rey mu jox leen seeni bakkan charlatan yi nekkoon en Afrique de l'Ouest yëpp ou l'Afrique des profondeurs fu mu toll ñoom ñëpp def nañu ay déplacement ñëw ci ndakaaru njaay ñii nekk ci eh, réseaux sociaux yi ak ci internet bi ak ci télé yi di la wax da ngay wér di lii pour am xaalis waxuñu la dangay da ngay wér di lii ngir set ci say bàkkaar jéemuñu laa setal ci say bàkkaar mais dañu lay wax dangay wér di lii dootoo ñàkk dépense moo lay wan ne li nit ñi di wax soko jangate mom moom moo lay wan difficulté yi nit ñi am est-ce que Macky Sall mu ngi déglu ñooñu est-ce que gouvernement bi mu ngi déglu nit ñi man suma nekkon nekkoon damay dugg duma sax déplacer wuma da ngay dugg ci canal YouTube yi rek le problème de ce peuple mom la waxtane fofu moy mbirum khalis bo wër dé li da ngay am khalis turu yalla bi wala astaghfirullah bi ni yooyu sax gëm nañ ko ndax astaghfirullah moom boo setalee sa bopp rek xéwalu yàlla gi egsi moom waaw xéwalu yàlla gi egsi da ngay wér di lii wala da ngay julli ay façon julli yoo xam ne kenn mosu koo gis ci sunna ñu créé ko ne la boo ko defee dangay dangay am da ngay am dépense donc pourquoi le gouvernement du jël en charge une portion des dépenses quotidiennes de nos familles mën na ko am nañu bu ñu organiser rek dinañ ko def billahi yàlla xam na ko parce que France da koy def Amérique da koy def même bu fekkee ne xëy na ñoom ci ñun la ñuy jëlee suñu ressources yi organiser une politique socio-économique bi tax ñoom ñuy mën a prendre en charge lekku nit ñi wutum dépasse moo waral wérdu gu metti gi gars yi dañuy wérdu ba seen gémmiñ di fuur ñii dañuy dañuy wax a wax a wax ba seen gémmiñ yi xasaw salte du ñu tala sax brosu seen tuñ yi daggatoo ndax wut lan dépense te gouvernement bi mënoon na cee jaamu yàlla am na ñoo xamante ne ñu ngi ci dëkk yii nii parce que man li ma gëm mooy ñii lu ñu def rek ñun war nañ ko mën a def bu ñu am na ñu nekk France ñoo xam ne yàlla xam na ne seen genn wàllu dund par jour gouvernement France moo ko yore am na ñu nekk ci Amérique ñoo xamante ne ñu ngi dawal ay oto yu rafet daanaka ñi gën a pauvre zone yi gën a pauvre fi ma dëkk man ci Amérique boo fi rombee ñoom ñooy gën a yore oto yi gën a fancy te rafet dañuy gaare foofu ay ñaar ñetti Mercedes ci buntu kër gi waaye ñu ngi dëkk ci benn benn genre barak baraak nga koy mën a woowee mooy dàq suñu kër yi Sénégal mais baraak la fii par rapport ak kër yi fi ne waaye dañuy lekk ba suur parce que gouvernement bi mooy prendre en charge ñun bu ñu organiser woon or bi ñu am jamaa bi ak ak ak ak gaz bi ak pétrole bi ñuy découvrir te ñun bari wuñu chaque année ñu ne yokk nañu un million te matu ko ñeneen ñoo ñuy infiltré sénégalais yu juratuñu sénégalais yu juratuñu ñeneen ñi ñoo la ñu bind parce que CEDEAO daf ñu wax ñu ubbi suñu frontières yi mu perméable ñeneen ñi nag gis ne Sénégal neex na ñoom dañuy nelaw xaar ñun ñu ñëw occuper affaire yi waaw bu ñu ko organiser woon rek te loolu mënuñ la ko def te décompté wuñu sénégalais yi réellement ñan lañu ñi seen maam yi doon dee pour réew mi ñi seen maam joxe seen ñaq ci réew mi ñu ñu quantifier leen xam ñaata lañu. bu ko defee bourse familiale bii Macky Sall defo waxoon dina ko bu ko doxalee rek day entrer dans l'histoire comme ni mu naroon entrer dans l'histoire bi mu jëlee ne mandaam da koy jëlee sept yóbbu ko cinq ans day entrer dans l'histoire waaye defu ko li tax nag defu ko moom moo koy res moo moom moo koy répondre Mon vais répondre ndax bu njëkkoon sax gis nga le premier décembre première élection bi ñu au Sénégal en 1963 élection présidentielle bi ñu en 1963 1er décembre kan décembre, doon dem ci élection l'élection Nous sommes Léopold Sédar Senghor un candidat candidat unique nous avons am 100 des suffrages réew nous 40 plus de 40 personnes Nous bobu français imposer di imposer seeni nit élection présidentielle élection kay bu koy wax kay loolu kay dafa a am ñuy ñu candidat bi Léopold Sédar Senghor le candidat de la France waaw ñu ne moom mooy candidat bi mu dem ci élection yi gagné 100% pour cent des des suffrages xam nga loolu boo ko déggee rek moom dictature buy bu ñuy teg la moo tax mu yàggoon fi malgré frustration sénégalais opposition bi di manifester ñu ne leen yéen du ngeen bokk ci élection yi Senghor rek moo ciy dem mooy gagné gars yi def manifestation ñu tiire seen kaw ba ko laajee lan la wax yor naa élément bi bañ ko lan la wax mu ne loolu question bi ngay bi nga may bi ko tubaab bi laaj mu ne demal nga laaj ko opposition bi ndax force de l'ordre yi dañoo taxaw ñële di leen tiire xam nga loolu ay fen la gars yi tiire wuñu ay fital ñu yore ay fital te nag affaire légitime défense la wax te légitime défense dëggantaan njaay la riposte doit être proportionnelle à l'attaque noonu la war a demee nit du ñëw di la sànni ay xeer nga koy tiire nga koy tiire ay bazooka du légitime défense parce que xeer bi dalay lay gaañ waaye du la rey ñu tiire ay nit rey leen fan la mujj mujjul fenn waaye li ma bëggoon wax mooy ca jamono jooju Senghor ay cinq ans cinq ans rek lañ ko doon fal cinq ans cinq ans cinq ñetti président rek ñoo fi ñoo fi dund fu mu toll nii sept ans mooy ba ñu demee ba 1993 Abdou Diouf ñëw def ay changement am toog 7 ans 93 ba 2000 Ablaye Wade ñëw toog 2000 2007 delluwaat ko cinq ans Ndeye Mati ñëw ñuy yaakaar ne ñu ne le candidat de l'espoir le candidat de la jeunesse le candidat d'après indépendance kii nag moom affaire film yooyu gars yi daan def moom du ko def moom wax dëgg yàlla mu wër fépp Nations Unies fépp France gars yëpp di applaudir ñoom Obama ñëpp naan ay waay way booy bu ndaw bi mooy guerrier vraiment cinquante ans rek la am cinquante ans nee na wàññi na kii lii nag ñu na ñi ñi ñi di xalaat nag naan ay ay Thomas Sankara dellu si na quoi man mi amoon naa espoir ah ndekete yoo mu ne sept yi sama ñaari gars yi dund dama koy dundu man tamit ah. ah dama koy dund ah. waaye it loolu bu ko wàññi woon tey day tax ñun continuer rek ci quinquennat parce que quinquennat moo ëpp solo quoi nga ga mais nag quinquennat boo xam ne dangay ngay da une fois quoi Abdou Diouf fan yële dama ko doon seetaan ci benn interview tubaab yi di ko laaj parce que moom du wax ak wax ak sénégalais yi quoi moom moom tubaab yi lay waxal moom tubaab yi rek la ñuy waxal Senghor ba mu fi wàccee it jafe na nga dégg ko mu mu mu mu wax ak journaliste yi sénégalais yi ñoom tubaab yi la ñuy waxal mu ne waa ji laaj ko mu ne vraiment bu fekkee ne dama lay wax très franchement ñu ne ah, mu ne vraiment man mii sax dund naa ko maanaam ay mandat yu dul jeex te bu ñu ma bu ñu ko arrêté wuloon 2000 day defaat beneen mu ne waaye yaakaar naa benn mandat renouvelable une seule fois vraiment doy na quoi. Abdou Diouf a ko wax billaahi Abdou Diouf a ko wax yàggul bi mu ko waxee ndeysaan dalay leer nag ne kon. ñoom des fois bu ñu nekkee ci pouvoir bi ñu leen di pousser di leen tiital parce que gars yi dañuy tiit moo tax ñuy ñuy ñuy ñuy foqale wala ragal ne dañu leen di topp mais bu ñu amee assurance que ni bu ñu wàccee ci nguur gi kenn du leen topp du ñu bëgg a toogaat lu yàgg. Senghor Abdou Diouf a ko wax nee na très franchement fi ma toog nii bénéficié wu naa ci lu bari ci yu demee noonu waaye fi may toog nii boo ma laajee ma ne la vraiment ñaari man mandat doy na quoi. mais loolu moo loolu la nit ñu silvissé ñi di def grand man su ma toogoon ak Macky loolu laa koy wax man nag buggoon naa nekk conseiller quoi billahi bëggoon naa nekk conseiller damay wax sama dëgg rek buggoon naa nekk conseiller président de la république de mais nag à condition ñu may may ma koy gis di wax ak moom périodiquement wala mu may woo sax téléphone périodiquement may wax man li ma xalaat kon dootuma waxati rajo parce que li ma xalaat lépp laay wax. damay dajale frustration nit ñi ñëpp wax la ko tiital la sax ba nga xam ne yow loo def doyul ndax retard bi ñu am loo def doyul mais gars yi dañ leen di fal ay conseillers du ñu gis président bi wala ñu nekk ci télé yi di lambar lambari boo yeexu ñaan man man conseil di président la ah, di def ay émission xam nga ñii di ñii nekk ci salle de professeurs yi nañ ay ay conseil ay marabu ay marabu doon ay conseiller président te duñ ko sax gis ah. mais ñooñu lan la ñuy conseiller président bi ñooñu xanaa gisuñu luy xew ci réew mi ñooñu xanaa duñu jàng ci li xew ci histoire nga xam ne tey premier décembre 1944 la ñu rayoon ay sénégalais yu dul jeex ay centaine la ñuy fen di wax une quarantaine dem ba mu ay ay dizaine sax la waxoon une dizaine demal ci archive France yooyu la ñuy wax lañu koo minimiser parce que kenn xamul ñaata la ñu suul man leer na ma ne ay centaine la ñu rey waaye comme que reconnaître na ne am na quelque ñu ci dee rek moo lay wan ne boo la neexee nga multiplier loolu par 10 ñoom nombre bu ñu la wax rek multiplier par 10 rek waaw ñoo xamante ne France lañ doon xeexal France lañ doon geeral te gis nga gis nga problème mu Occident ñun Afrique bu ñu ci yeewuwul du ñu mos a yeewu te te yeewoo gunu nag ñi ngi xandoor ndax li la koy wax mooy ñoom bu ñu amee guerre rek mu nekk guerre mondiale pandémie bi bi ñuy wax mais mais ci mais seen réew la nekkoon pandémie yàggagul woon ci ñun te ñun tëjuñu amuñoo ñoon sañ-sañ tëj sunu frontière bi muy rey américains yi fii ci seen dëkk bi ñuy bëgg a dee tiit di paniquer jekki-jekki dugg France dugg Allemagne la maanaam bëgg a jeexal italien yi ginnaaw bu mu defee ravage en Chine mais ñun concerné wuñu woon waaye tey gis nga variant bi bi mu tàmbalee lu laal Afrique ñu isolé Afrique bi ñu nee va euh, euh, virus Macron bi virus Emmanuel Macron bi bi mu xewee en Afrique du Sud gis nga ni mu demee xoolal da ñëpp a tëj seen frontière ci saa si tic tac rek ñu tëj mais ñoom bu ñu amee un problème mu nekk un problème mondial su ñu amee guerre mu nekk guerre mondiale. ana yële ñu génn rek diggante affaire Ukraine ak Russie rek tuuti moo manqué woon mu nekk guerre mondiale fu mu toll nii bu Russie ak Amérique doon xeex léegi mu nekk guerre mondiale ñu ñëw abbu ñu ay nit léegi nag ñun dañuy ñàkk fayda joxe ah ñun problème problème mu tubaab yi mooy sunu problème sunu ñàkkee xaalis seen entreprise nar a tëj français yu bëri nar a nekk ay chômage Macky jël entreprise boobu jox leen marché Sénégal comme ça ñu versé leen ay milliards léegi nag bu de bi mu demee voyage ca ñooñu ñëpp di ko tàcc mu nekk benn nit ku ñuul cundung ak ñaawaayam ak bakkanam bu rëy tubaab bi naan ko jërëjëf merci monsieur le président vraiment tu nous as sauvés muy muy lambar lambar xam nga nit ku ñu la dafa bëgg applaudissement tubaab de yooyu lañuy def bo gisee photo bi mu nekk benn nit ku ñuul cundung ci digg bi entreprise bi ñëpp wër ko ñun yooyu lañu bëgg ha ñun yooyu lañu bëgg fu mu toll ni am am xam-xam te tubaab waxul ne am nga xam-xam sa waa dëkk duñu jàpp ne am nga xam-xam xoola booy bi bind livre boobu bërki démb te ñi muy défendre xam ngeen leen waaye bu tubaab ne lii baax na rek ñun ñëpp ñu ne baax na Senghor a fi dàq làkk tubaab waaw c'est un moo ñu gën a dégg tubaab waaw Cheikh Anta Diop bëri na xam-xam ñun ñun gisuñu ko woon ba tubaab bi ne Cheikh Anta Diop bëgg bëri na xam-xam te moom sax li mu li mu li mu mérité joxuñu ko ko cent pour cent parce que comme que tubaab bi dañu koo contre dañu koy limité waaye mënuñoo bañ xam-xam parce que xam parce que dafa sar ñëpp gisandoo ko ñun ñooy ñun ñooy le sauveur vraiment de l'humanité nag quoi loolu nag moom nañu ko nangu waaw ñun ñun bu tubaab yi ñëwee suñu dëkk yi ñun dañuy wa raxas suñu duusi ba mu set raxas lal bi waaye ñun gane beneen gan boo am ni ni mu la fekkee rek lay tëddee foofu tëddal ci canapé bi doo raxas douche doo changer menu du jour bu tubaab ñëwee loo loo dencoon génne ko toggal ko lu neex moo tax tubaab bi ni ñu buggee Sénégal ni ñu buggee Afrique ñu gan ganu tubaab rek la nu bëgg ah. pourquoi parce que opportunité bi ñuy rêvé opportunité bi ñuy rêvé moom la ñuy andil mooy xob espérance. da gis nga espérance moo moo taal àdduna bi xam nga nag foofu nit ñi dañ ciy dañ ciy toppandoo yàlla tuuti quoi parce que yàlla dane bu dane def leen lu baax. boo ëllëgee ma yóbbu leen àjjana gars yi xamuñu fu àjjana nekk kenn demul dellu si xamuñu ñe dem fa la fa nekkee waaye ngëm-ngëm bu gën a rëy mooy boobu te pourtant ñëpp mën a def lu bon ñun lu bon rek lañu la mën a def naturellement comme doomu Adama ak bi bi ñu rayee bi kenn ki reyee moroomam noonu la demee lu bon moom ñu def ko ak jalousie c'est naturel yàlla nag bëgg dindi loolu challenge ji ñu dig ñu loo xamante ne ñun gisuñu ko ñi ko gëm rek mooy borom xel yi nag moo tax muy wax ne borom xel yi laay waxal ñi ko gëm ñooy borom xel yi waaye saay saay si ko gëmul ne eh da leen dof la fa foofu rek may jaar sa kaw ñoom noonu lañ koy defee léegi nag ci espérance ak xob boobu ci la ñu ci la yenn nit ñi di naxee ñeneen i seeni moroom surtout l'Occident noonu la ñuy naxee gars tukki bëgg ganu français bu ñëwee yóbbu leen France boo ñëwee fii nii da ngay liggéey fii li ñu fi li ñu fi li ñu fi am kenn mayuñu ko dañ koo ñafe dañ koo ñafe boo demee bay liggéey une structure gouvernementale d'un pays occidental dang nga ko ñafe ko ñafe kenn foru ko bo fi ñëwee amu amuloo xam-xam bu la neexee nga nekk ouvrier yaay tane ouvrier bi nekk Sénégal mais ouvrier nga de toute façon mais bu fekkee ne da ngay jóge sa réew ñëw fi nekk ouvrier mais pourquoi mënuñoo defaral ouvrier yi mën gis seen bopp ci sunu réew mi bu ko defee du jar tukki du ko jar waaye nit ñi dañuy commencé di wax seeni frustration amuñu fu ñu koy waxee ñu am benn outil benn médium bu ñuy woowee réseaux sociaux mu nekk Twitter Instagram Instagram nekk sax TikTok bi léegi yooyu ay yooyu noonu ay distraction ñun lañu ko jëlee mais am na ñu koy ñu koy utiliser bu baax pour def ay propaganda ci changement ci ay réew ci wàllu politique ci wàllu santé ci wàllu social ñu ngi koy def ci Twitter ñu ngi koy def ci Instagram ñu ngi koy def ci TikTok ñu ngi koy def ci Facebook mais ñun bu ñëwee réseaux sociaux rek ñu ne Facebook quoi te fekk c'est un ensemble c'est un groupe de média boo xamante ne mën nga fa véhiculer sa information mën nga fa yóbbu sa lut léegi nag ñe ñun ni ñu ko utiliser mooy distraction bi ak comédie bi même bu fekkee ne am na ñoo xamante ne dañuy jël yooyu Il faut rappeler l'histoire il faut faire ay histoire Seigneur, ay histoire Abdou Diouf ay fait Il dafa faire une tournure nous am ci sunu vie am vie... ñu koy def bariwuñu ñi ci ëpp parce que c'est bien parce que nit ñi dañoo il faut décompresser moment gouvernement tailleur tailleur constitutionnel bobu tuddu Ibrahima major Fall nga xamne jangam bi jarewu ko jariñu ko dara luddul def lu bon xam nga bo jangé mbirum science politique ba don ci un professeur manam da ngay yoré ay histoire yu bëri histoire des régimes xam nga science politique loolu la nit ñi di faté c'est l'histoire de ce qui s'est passé hier en politique ta bonne politique moy dañuy développer une politique sociale une politique économique une politique sportive une politique dans d'autres domaines. Pourquoi Pour satisfaire les besoins de la population. nga jang yooyu yëpp mais dictature yi tamit da kay jang. Nakala les dictateurs jaar biñu amé tel problème ou tel problème nan lañ ko résoudre nan lañ ko résoudre am ño par la violence lañ ko résoudre am ño par des magouilles la ko résoudre seen longévité ci biir ci biir ci pouvoir nga jàng yooyu yëpp xam ko nga xam ne da ngay dem ba ca ay at yu ginnaaw dans civilisation yi xewagul sax liñ koy woo li ñuy wooyee civilisation romb ay régime yu bari en Europe jël ci ay exemple mu nekk en Italie wala en France wala en Allemagne wala aux États-Unis wala en Angleterre nga dajale lolou yëpp am ci xam-xamu say say bi yow nak tan lo bo xamantene mom moy tax nit ñi mën dund dund gu bax. yow ngay seet yow naka ngay utiliser exemple yooyu xewon yëpp pour que sa prince bi nek ci bop rew mi mën fay yag quoi pour mu mën contrôler nit ñi nga ne leg yow am nga xam-xam bi li lu bees la. ay réseau sociaux la waaye yow di nga ci am xam-xam boo xam ne di nga ci tiire luy ragalloo nit ñi luy tiital nit ñi ba ñoom li leen naqari seen xol duñ ko mën a génne te pourtant dëkk yu mag yi ñu nekk nii ndeysaan tey lu man neex loo li ma naqari sax man defoon naa ay video man di ko génne ci réew mi li ma naqari man te ay sujet tabu la kenn du ko laal mais may nañu ma ma wax ko parce que li nekk sama xol bi su ma ko génnewulee mën na nekk ay act yu ñaaw ñu bàyyi ma ma génne ko moo ko gën léegi nag ñoom ñu ne léegi bu ko fi kenn génnetee ginnaaw ba jimboori waxee bu fi kenn manifesté wu ginnaaw ba jimboori waxee bu fi kenn takk brassard rouge ginnaaw ba jimboori waxee ne leen euh, wax sa xalaat yi ngeen di wax ci rajo yi léegi waa Sénégal dañ leen di tëj ndax dañ di saaga kenn mënatul wax sa xalaat ci tele télé yi wala ci rajo yi léegi nag ñu ne réseaux sociaux yi nga xam ne ñoom wu ñu ko ñu ne léegi nag nit ñi dañuy créé benn kii boo xam ne lu leex lañ fay wax réseaux sociaux yi dañ faa wax lu gën a ñaaw li ngeen di wax te yéen ñi ñi yàq réseaux sociaux yi yéen la ñuy liggéeyal ndax man am na ñoo xam ne su ma leen tuddoon tey bu subaa ñu wax sama samay maam li ñu fi nekkee woon heureusement nekk lu baax la ñu fi nekkee woon waaye dañ leen di sosal soo waxee benn opposant dëgg mu ñu activer ay ñoo xamante ne di sos ay wax yu ñaaw di ko jëmale ci nit ñi yéen yéen a ko créé yéen politiciens yi rawatina yéen ñi nekk ci nguur gi léegi nag seen militants yi bu ñuy saagante ay nday yéen ngeen di saaga ñee ñee di saaga ñee mais yéen ngeen bëgg a xëy nag ngeen bëgg cee profito pour xañ nit ñi seen liberté loolu c'est de la dictature démagogie la yëfu saay-saay la yëfu voyu la te gouvernement warul doxe noonu léegi nag ñoom li ñu xamul mooy bis boo yaakaaree ne nit ñi mën nga leen a contrôler ni ñuy daje seen dajale seen frustration wane nañu benn keroog ndax yéen du ngeen jug ci ay erreur di ngeen defati erreur boo xamante ne mooy taal Sénégal bàyyi leen nit ñi ñu wax seeni xalaat comme que ci ay wax rek lañu la ñu yem leen ñu wax ginnaaw formanté wuñu dara pour rey nit bàyyi leen leen ñu wax bàyyi leen leen ñu wax parce que sénégalais comme man la mel man sénégalais comme tous les sénégalais ñu ñu ci ëpp ay sóob maan ñu li ñuy wax ak li ñuy doxal xëy na mën na sax du doon benn waaye bu ñu meree dinañu wax nañu ñu bàyyi ñu wax mais ñuy créer ay commission yoo xam ne dañu ne dañ koy jox Ibrahima Madior Ismaïla Madior Fall gaan bo nga xamne boko xolé ko rek lay nduro ak ay veeram yëfu say say rek lay def lu mu wax tay bu suba mu weddi bor boppam waaw avocat la xam buma sama tank senegal mu yobuma tribunal pour diffamation waye limuy doxal ci bir rew mi lay wax man da jàngee naa fac droit jangal na ma parce que ñuma fa jàngal ñep rappelé ma tur euh, professeur Mbodj la ci gëna xam ak Amsatou saw Sidibé ak jey Ablaye Dieye ñooñu laa rappelé wu ñeneen ñi su ma leen gisee dinaa leen xàmmee mais seen tur rëcc na ma ndax yàgg na xëy na jàngal na ma waaye li muy jàngale ak ak li muy def nii wuute na de mandat trois ans euh, euh, troisième manda mënu fee am dem ba mu neex la ngay expliquer leneen tey ñu jël la nga bëgg a taaye loo xamante ne mooy tere sénégalais yi ñu wax loolu baaxul waaye loolu baaxul loolu yëfu seytaane la loolu yeufu seytaane la waaw léegi nak xew-xew yi nga xamantene xewon na fi ta tay doon anniversaire bu am solo Waron nañoo yee 1963 1944 ay event tay anniversaire am la lan lañ ci Lolo lolo am njariñ nak? Oh am njariñ président bo xamantene da ngay ñew ci élection ne yow cundung la doo am opposition <laughs> gars loolu la ñu bëgg fumu toll ni moo tax ñu jàpp seen opposants yi du ñu ci xeeb kenn démb def naa ci waxtaan déglu leen ko kenn du la opposé yow rek nga nekk fi bu ko defee nga def comme Senghor yooyu xewi na yooyu xewi na léegi nag ñi ñàkk fayda nag ñoom ne dañuy yow sa réew doxul yow nga ne léegi da ngay génn réew mi jël sa risque di dem di dee ci ndox mi bërki démb bërki démb lañ ma yónnee benn vidéo boo xamante ne ay nit ñoo doon dem Espagne réer ci ndox mi ba mujj wàcc di bu xawma ma choc xamatuma sax fan la ci Mauritanie ci booru place bi ñu tëddal leen ñuy dee petit à petit ñu ne presque xawma ma ay matoon nañu cent waaye vingt cinq ñoo ci teer ndax ku dee rek ñu la ci ndox mi nga nekk ci réew moo xamante ne yow ak ñi fi nekk yéen a mais xeexal pour am sa place mais lolu jar def réel politique envahir les partis politiques xeex au niveau des partis politiques pour que réew ñu changé ko parce que kiko jité bu doone do la bayam ak ndayam lañ doon liggéey liggéey yo xamantene ñu ngi leen bolé won ci catégorie bi gëna touti ci réew mi dimbali ko ba mu nekk ci kaw dafa warona jappalé ñi ñak ñi lolu mo nekk liggéeyam man suma ma ci suma ma ci man man ñi ma meloon ni man lay jappalé te ñu ñooy majorité ci réew mi mais nag doone man léegi bokk naa ci classe bi nekk ci kaw rek ñeneen ñi dama leen di fàtte di sàcc ay xaalis jël say doom yobbu bitim réew di fal say xarit ak ak say mbokk léegi nag ñeneen ñi ñàkk fayda au ñu xeex comme yow ba ba fi nga yegg ñoom ñu ne dañuy jël la solution la plus facile ne da ngay traverser ay désert dem ñu lay jàpp ay jaam di lay takk di lay dóor di lay rey ngay mën a dee ci géej gi nekk lekku nekku jën yi nga bëgg koo nangu nga ne da nga bëgg a tekki te mun ngaa tekki sa réew président bi loolu la def loolu nag mënoon nañ cee jàng président bi loolu la def na gaa yi xeex ci biir réew mi comme ni ko ñi nekk ci réew mi doon defee mais nga naan da ngay xaroog ay ña yooyu tamit ñu baal ma quoi yàlla bu ñu yàlla nattu ci yooyu mais lu doy waar la yow fi nga waxee ne da nga fa feel am na ñu fay réussir nga ba nga fexe nag ba une révolution boo xamante ne xam nga révolution ci réew réew yi mu am yëpp noonu lan moo ko waral lan moo ko waral xoolal Amérique rek révolution 1776 bu ñuy wax wala France demal nga xool seen révolution lu ko waral ñoo xam ne dañuy ne dañuy nekk ci kaw par force maay sëtu diw ak diw ak diw te looloo xew ci réew mi ku nekkul surtout diw ak diw ak diw amuloo droit wax gaa yooyu mënoon nañoo xaru wala ñu rey seen bopp bàyyi ñooñu ak ak ak ak ak dund boobu mais defuñu ko dañoo xeex te xam nga révolution lu muy indi mooy maanaam day mettre tavola rasa lay def tavola rasa moom lay def mooy day yóbbu ñëpp ñu tolloo devant l'opportunité ñu daal di commencer build up daal di fàttaliku nag li fi xewoon ñu ne eh dootu fi xawati ah. yi xewoon dootu fi xewati de ay ñi seen baay doonoon ay juge ñoo ñëw dellu si tey di doon ay premier ministre wala jiite ay jiite ay ay ay ay ay ay ay ay société nationale parce que ñoom la seen baay amoon chance sàcc lu réew mi yóbbu leen ñu jàng ñu bëgg a dellu si bëgg a nekkaat ñun sunu ñi nga xamante ne ñoo nekkee ci réew mi jàngee ci réew mi ñu ne loolu bu mu fi amati jaxase lépp commencé waat tabax gars yi la ñuy bañ te loolu nag su ngeen ko bañee da parce que benn dee rek mooy am suñ la dominer benn dee mooy am soit nga jug ñu defaraat affaire bi ñëpp tolloo chance devant l'opportunité ñu defar ñëpp xam ne sénégalais mooy jariñu wala rek nga nga dem di def mourir à petit feu de toute façon c'est inévitable yow nag yaa choisir benn bi mooy da ngay dugg ci au lieu bu dee politique la nga def politique bu dee xeex la nga xeex jar na dugg ci biir politique bi yëngatu fi parce que de toute façon tay ñi di yëngatu ci politique fi mu toll ni ñepp bëgg a remplacer Macky Sall seen diplôme mën nañ ko sétat ay formation professionnelle la rek mais du ay jang bu reuy formation professionnelle la ay docteur lañu bëgg doon maire de Dakar ñi don doon ay contrôleur économique ñii nekkon nekkoon fii yoruñu fi ay dip ay formation la ni nga xamantene professeur bi dañ koy former mu dem nek un professeur ay formation professionnelle la de du jang yu extraordinaire ah. du ko wa bëgg ngeen xam ko parce que des fois da ngay dégg nit ñi ñuy exagérer ñen ñi seen i ay formation professionnelle la ñaata at ngay jang pour nek professeur ñu na la 5 ans nga dem def formation 5 ans ñaata ngay jang pour nek docteur nga jang nek docteur donc du fa ay jang ta jang bu bu vertical moy ben profession lañu la jangal jeexna yor ñu fi ay jang yu horizontal yoy nga xamantene ne Ablaye Wade lañ nan mom mo ëpp diplôme di du Cap au Caire nekkul yoy de nit mënu a xam lepp ku ci nekk sa domaine ngay xam waye intégrité moy jité réew intégrité ak njub ak bëgg sa réew patriotisme loolooy jiite réew ah gars yi bu leen kenn nax bala ngeen dee rey seeni bopp nag ci biir géej gi wala ci désert bi dajaloo leen def leen i groupe ngeen dugg ci parti politique yi def réel politique bu ko jaree bu xeex jotee ngeen xeex bu xeex bu bu fekkee yegg nañu ci mais nag dem di pendre sa bopp wala nga naan da ngay dee comme un rat alors que amoon nga yoon woo xam ne boo ci jaaree yàlla dimbali la papay Macky Sall jiitewul woon conseil constitutionnel du woon premier ministre exemple la parce que ni nga mën a jëlee exemple yu baax noonu nga mën a jëlee yu bon nanu ko ñafe ma yamee foofu Amadou Diop waaw waroon naa laa jox kàddu nga nuyoo maa ngi la ko doon wax waaye fàtte naa ko waaw maa ngi lay jox kàddu gi waaw yéene bi moo ci am solo

non non non baax na parce que problème bi mooy xam nga man loolu xam nga problème bi mooy comme réew ma léegi suñ réew ma léegi kenn wax dëgg hmm. ah il faut que nag benn sénégalais ne leen attendez d' accord da ngeen ne ngalaat ña nekk ca dëkk ba ñun mënuñu ne ñun ñun du ñu nangu ku ñu ngalaat hmm. parce que ay wax ngeen am ñun tamit ñu wax sunuy ah, sunuy wax hmm. voilà nous avons ne nu parce que addu hmm? c'est ça la réalité. de toute façon malheureusement de toute façon wax nga ko tout à l'heure ah, parce que loolu dama cee ànd sax jarul ma Je ñëw parce que pays yi nga xam ci parce que hmm. que vision voilà la réalité tamit sunu Sénégal gii cool yi bari wax nga ba mu bàyyee dinaa ci wax tuuti. ata demal Amadou demal. maa yow rek xam nga waaw xam nga problème mu Sénégal. Hmm. gis nga tubaab bi mës a juum ci lenn lu muy def. wallaay lenn lu muy def mës a hmm. xam nga tubaab bi dafa xam parce que moom lay wax toujours tubaab bi dafa xam la cartographie géopolitique. ci Sénégal ak ci en particulier en Afrique dit honteusement francophone tubaab bi xam na li def parce que cette loi, évidemment à partir de 1963 dans ci ñëw tout à l'heure ah Mamadou Dia fi nekkoon ñeneen nekk fi wal jojo Njaay Cheikh Anta Diop allahu akbar le kamit panafricain l' intellectuel waaw ne leen ah mu jànge tubaab évidemment moom ci boppam sax muy Cheikh Anta mu ne ah leen da xam naa day maanaam africain dal su waxee hmm. kenn du ko dégg waaye waaye su tubaab bi waxee ñu ne loolu moo am hmm. wax ko tout à hmm. loolu la def parce que li tax mu def ko parce que tubaab bi mus sa lepp ci lenn loo xam ne def nga ko wala def na ko parce que boo seetloo l'histoire du Sénégal en particulier l'ex-capitale maanaam la capitale de la l'AOF Saint-Louis la woon mm. léegi tubaab bi bi nga xamante ni wii ne après la deuxième guerre mondiale en 1945 tubaab bi xam ne la conjoncture internationale tubaab bi mënatu fee nekk di def li ko neex mm mu ne lâché du lest tout en prenant le soin de placer ses pions Wow. Et à partir de 1955 gis nga li fi xew Senghor ak Houphouët-Boigny maanaam ñu comme les porte-voix de la France waaw que Mamadou Dia la fédération du Mali jàppal bàyyi wax nga ko tout à l'heure waaw loolu moo fi am te bi ñu defee coup d'état bi bi Senghor defee coup d'état a bi nga xamante ni bii ne jàpp nañu Mamadou Dia ñoom wal jojo Ndiaye kan moo nekkoon seen avocat Abdoulaye lay mm. Abdoulaye Wade mii moo nekkoon seen avocat Abdoulaye Wade dañuy fàtte benn affaire mm. Abdoulaye Wade dafa jàppale Algérie bi Algérie di xeex ñu mm. bari dañuy fàtte loolu waaw ñu bari dañ koy fàtt discours bu mag la ci def gis nga li nga xam ne moo ci xew parce que Senghor dafa addu calpe parce que violence coloniale lay def pédagogie lay def parce que kon Ismaël Madior Fall nga xam ne finalement Macky Sall la fi nekkal te Macky Sall ñëpp xam nañ ne nekkalu fi sénégalais yi mm. tubaab yi la fi nekkal ak seeni entreprise coloniale 440 addu calpe marché yépp ñoo koy foqar ci ñu am pétrole gaz ak tout c'est don de Dieu sénégalais di braver les terres et les mers au péril de leur vie ñu ne violence ay décret ay décret yoo xamante ni bii terrorisme di ko jaaree ci loolu parce que tubaab bi ñoo leen ko digtal évidemment ku mel Ismaël Madior Fall et un certain soi-disant constitutionnaliste tailleur tailleur à ah, merci et corvéable nga xam ne dañoo nekk des politicards alimentaire di def répression di wane ne finalement réseaux sociaux yi daal finalement dañuy indi fitna ci dëkk bi kon Ismaïla Madior Fall maanaam code de télécommunication bi fi Abdou bi fi Macky Sall indi woon loolu loolu lay daganal mhm. maanaam l'État a le monopole de la violence te c'est hystérique et surréaliste parce que sans les citoyens état musta voilà la réalité si bien que parce que pour Ismaël Major Fall la politique et les postes de nomination ne font une fin à soi parce que tu lay dund parce que tu l'es ñuy C'est une mienne du jeu lolo la mm. parce que amuñu fit ay Hmm. voilà kenn mënu ko yombal te dégg nga discours nga ci Macky Sall lu wax ko wax te amuñu te xamuñu patriotisme dafa altruisme la vision la manam euh, fatalisme euh, manam le développement nekkut fatalisme lañ ko gis c'est des opportunistes des arrivistes ismaël Madior Fall ñepp xam fi mu nekk te d'ailleurs sax wam nga ko xam nga affaire intellectuel euh kii la te et puis il y a intellectuel et intellectuel ay diplôme leneen la c'est des connaissances présumées tout simplement voilà nekkut ne euh, yaa fi ëpp xam-xam déedéet yow ñu ne la récité le droit ñu ne la article 45 25 vingt cinq nga koy récité ana sa xam-xam hmm. ana sa xam laaj naa la mooy sa xam-xam mooy hmm. soo ko jàngee ba pare hmm nga seet li nga expérience la sur la chose publique en toute conviction mm-hmm. nga c'est un risque majeur mm. maanaam ngay condamné loo xam ne jaaduwut quitte même à mettre ta vie en péril comme mm. duñ ko def li toute contestation toute contradiction politique sont systématiquement interdites et deviennent de facto, doivent être tuées dans l'œuf. Madame, violence coloniale pédagogique Madame, mom dans le substrat des Sénégalais présumés amnésiques c'est ça la réalité de là, il est temps que qu'il y ait la décolonisation des esprits hmm. sont sont Sénégal voilà la réalité hmm. 1963. Hein? évidemment Senghor 1er décembre 1963 Senghor à 100 l'unique candidat pendant 20 ans nous, fokkar suffrage universaliste waaw c'est mon l'homme de fokar nous indi euh, un régime présidentiel autoritaire fort mais en marchant sous des cadavres te xam naa li may wax parce que wax nga ne rey nañ ci ñu bari mais li ñuy fàtte en 1968 lors de la grève des milliers de sénégalais dañ leen a rey ci 68 Senghor déclaré ne légitime défense la. te sax li ci gën a garaaw ci jamono jooju li ci gën a garaaw waaw ci ci pleine grève boobu je dis je le dis bien li may wax kenn mënu ko wet

moom la sengor def parce que li tax ma la crime d'état la def Senghor bi nga face aux manifestations tout subanu saañ ba parce que ci Paris la won dafa am Paris ci aduna bi dafa am change ci Sénégal en particulier parce que c'était pas pour rien parce que France ak Sénégal ont tuba bi ñoo leen jangal ci jamono qu'est-ce que Senghor avait fait Senghor a recruté ci àll bi ci maanaam euh, dans les villages reculés du Sénégal des paysans yoo xam ne armés de flèches lu leer laa la wax dawal ñu koy population yi les manifestants c'est moo ko def loolu ndaw la ilaha illallah te li ci gën a hmm. population yi lassé indigné hmm. xam nga lu def hmm. dañoo nax ñu ñu recruter les paysans dañ leen a nax ba pare il y indi des poisons bi dañ def ñu bari de ci force de l'ordre leer la wax hmm. Senghor a fait ça dans l'histoire du Sénégal c'est ça la réalité donc dans ces conditions évidemment le fait que ne est sous le Sénégal 17 millions de Sénégalais te tout à l'heure hmm. ou peut-être 6 millions d'étrangers, c'est étrangers politique parce que l'objectif c'est que niñ ko defee ci libanais yi syriens Non, noonu lañ ko defee ci étranger yi jox leen carte d'identité de leen comme ça ñu le di woteel c'est ça la réalité nga hmm. loolu la loolu loolu moo fi am hmm. voilà tout parce que bi nga mais xoolal ma par exemple les politicards yi nga y compris Macky Sall et sa bande de fripouilles alignés mais ay poste de nomination là, maanaam ces sources sont sources d'enrichissement illicite loolu la ñuy def waaw parce que ñooñu di def décla d'ailleurs sax di wax naan dañuy def déclaration du patrimoine mais kooku sax njoor yabeer la hmm. état du ministre Sénégal ñu ku fa def déclaration patrimoine dañ la war a tëj ci kaso bi wala ñu rend <laughs> non xam nga lu tax njoor moo non attends dégg ah. parce que problème bi mooy ñooñu un par un amu ci kenn koo xam ne sa maam sa baay amoon na ay milliards avant ngay nekk ci ministre wala nga nekk député wala nga nekk leneen. Hmm. am kenn amu ko mais y compris Macky Sall. Hmm. xam nga Macky Sall d'ailleurs xam nga man loolu moom mu gën a metti ci affaire bi c'est-à-dire que ngay def déclaration du patrimoine nga xaar ba nga nekk président soit disant président. nga koy doog a def nga koy doog a def et puis nga def ko. via le conseil anticonstitutionnel nga xam ne nommé yaa leen mm. mais dans ces conditions ça vaut à volo mm. nous jari hystérie la ba sa jabar sax moom ta permanence Pour ay immeuble au bari Pour léegi Macky Sall deful déclaration ba pare les ministres là naan dañuy def déclaration loolu moo tax c'est une indignité naka lañ fi mën a pays beau, normalement dans un état régalien manam que euh, vous xam nga fi ay milliards waxuma la juste de la ci voilà mais duñ parce que mais voilà c'est une indignité parce que effectivement pandémie bi mm. le coronavirus parce que c'est le coronavirus bi ñu finalement Chine le jóge te kenn xamut fum mu quand bien même que Chine la jóge ñuy dagga sant États-Unis naan Chine la euh, Chine di leen ko di. mais li ci gën a garaaw après le coronavirus ñu ne variant amna. na ba pare ñu delta oméga alpha bêta mm. mais jusqu'à quand mm. du Sud wax nga tout à l'heure ñu ne omicron amna. mais c'est-à-dire que ay tur yo xamné ne surréaliste yoo xam ne xam fan lañ ko jël manam l'objectif c'est que manam euh, dafa am disons un arrière-plan idéologique manam hmm. liñ ci jublu moy manam parce que kooku c'est renversant même c'est voilà c'est renversant pourquoi c'est renversant mais épicentre bi jógee Europe légui ñu bëgg a wër ba quartier bëgg a wër ba ci gi dina Afrique du Sud la loolu moy waxi la dégg nga di barricade ou di frontière di fermer seen i frontière doy de waaw loolu naka la man a nekk hmm? naka la mën a nekk alors que au contraire sax ñoom dañoo waroon a ubbi seen frontière parce que li nga xam ne moom lañu ñu prédiroon amul hmm. léegi nag ñu jàll ci leneen di jaay seeni i garab parce que ñoom ñu mën caa am njariñ te kan moo tax kan moo nekk ci euh, euh, euh, ñooñu du nekk le présidents du monde ak ñoom ak ñoom ak ñoom Biden de ñi moom adduna bi nekkut ñi ko yaakaare hmm. banque yi ñoo ko ak les laboratoires ak la haute finance ñoo jité aduna bi. madame manam dañuy manam dañuy rek. Mm. légui mm. pour terminer. mais chômage bi nga Sénégal. nga les populations sont lassées et laissées pour compte sur les quais. grève voilà madame violence récurrente grève pauvreté vie chère waaw mais mais mais waa mais mais mais ñun ban dëkk lan nag. Hmm? ñoom ñuy pàccoo alalu réew mi. naa laaj di yaase di fen di dajale. waaw léegi loolu loolu loolu lan moo loolu lan la ci Macky Sall xalaat évidemment premier décembre bi évidemment euh, des tirailleurs sénégalais. Hmm. nekk ci Caaroy. te Sembène Ousmane def ci film bu rëy. Hmm. waaw ñoo xam ne ay tirailleurs sénégalais la nekkoon en transit. di dimb di bëgg a dimbali tubaab bi léegi ñu laaj les mêmes salaires que leurs collègues euh, euh, métropolitains hmm. ñu xaar ba trois heures du matin ñu tal si ñu ñu taal leen rendi leen mais mais mais voilà mais loolu naka la ma kooku dañ ko war a fêter euh, en abondance du Sénégal de façon emphatique àdduna bépp di ko déglu loolu lañ war a def parce que tubaab bi moom la def parce que bu ñu amee kenn ku dee dañ koy maanaam

Qui s'est dit, médias nga xam ne présumé faiseur de droit et d'opinion Comme le li ma lay wax donc mm. loolu la ñuy def Afrique le Sénégal voilà le problème le Sénégal pendant ce temps mm. faux médicaments di fi mais qui est responsable des faux médicaments mm. surtout ci fan qui est responsable kan est responsable De loolu ñu ngi bëgg a pour terminer comme waxtaan wi dit. mais le procès en appel de Barthélémy Dias nous renvoyons le 2 mars deux mille vingt deux c' est étrange et surréaliste man affaire boobu xanaa kon léegi dañoo bëgg a enterrer le dossier kooku rétropédalage la ah. voilà et président bi nee na koo xam ne boo ko jàppee réew mi tàkk kenn du ko jàpp oh, waaw mu ngoog kon pourquoi ñu doon tàngal moo tax ñu war a wuti doole wuti xaalis wuti ay mbooloo voilà voilà xam nga xam nga ñi ñu a fal duñ leen fal gis nga Sénégal fen ñu déterminer les structures de faculté hmm. là le problème du Sénégal Sénégal voilà lool mo fa nek yag na Amadou Aspa merci jërëjëf dafa mel ni Abba amna ku nek ci ligne bi de Abba assalamu alaykum wa alaykum salam Khalifa Ababacar wow. waaw sëñ Jawar maa ngi ñu nuyu maa ngi lay doog a ngi lay doog a ñu ngi lay ziar way naka wa naka wa fan la sax Normandie Normandie Normandie Ah. waaye ñëpp fi ñu ngi si jàmm. ah le débarquement de Normandie waxoon naa la ko fi. waaw waxoon nga ma ko ah, de. gars yi fa wàccoon ñëw libere français yi foofu lañu wàcce woon suñu tirailleurs yi. dëgg la dëgg la waaw acca ñu déglu dëkku dëkku Léopold Sédar ak Colette. waaw waaw ñu jox la kàddu gi. dëgg la jërëjëf maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Ahmadou Diop. waaw euh, di waxtaan bi am na solo. maa ngi lay déglu fan yii yëpp dama amul woon jot pour dugg mais dugg. ak émission yëpp maa ngi koy déglu. Euh, waaw man nag euh, seetu naa ni moom suñu suñu leader bi Sonko. Hmm. da koy sànni xeer rek. ah non sànni man ñëpp laa boole. <laughs> man faawuma ko de xaa yéen ko faa yéen di faawaate man faawuma kenn. waaw ñun nag moom xaw nañ ko faa. Ah, man nag faawuma kenn. moo tax li nga doon expliquer. Mhm. waaw waxal waxal <laughs> waaw li nga doon expliquer par rapport ak euh, rôle lu yi. Mhm. ak euh, liguey bi nga xam war nañ ko def euh, par exemple bu ñuy opposé wu. Mm. Euh, gis nga bo xolé ku melni Sonko Khalifa Sall Guy Marius man dama leen suivre de près ak Barthélémy Diaz. Mm. mais pour man c'est des ay modèle lañ ci façon politique du Sénégal buma jëlé par exemple exemple Sonko. Mm. ci mom la njëkk dégg député bo xamné ni dafa jël salaire am di diviser ko ndeysaan en trois jënd association de femmes et tout ça ndeysaan mu jàppale ci ay ci ay GIE ah de euh, ñun en tant que membre wa en tant que membre Pastef dañuy def euh, souvent ay ay ket comme bi nga doon wax hmm. euh c'est que politique bu Sénégal dafa laaj moyen au fait parce que bu dee da nga da nga nek sa liguey hmm. xey liguey wacc am njaboot ñibi sa kër hmm. do am temps wu def politique donc soit nga am xaalis ba meloon nga nga nga détourné comme Macky Sall ni mu defoon ba am moyen dem defi politique. Mm. nekk ci suuf sàcc ba am moyen dem def politique mais bu dee da nga ko bëgg booleeg sa mm. euh il faut que il faut ñu jappalé la pour nga mëna dem parce que pour nga mëna a dëkk bi ñëpp xam la. du mm. yombul man dama am euh, sama ben bo xamné militaire la. Euh, daf ma doon wax da doon surveiller élection yi mais nee na dans les fins fond village du Sénégal euh, am na ñoo xam ne nii Macky Sall dong dong la ñu xam yeneen ay su xamuñu woon sax Ousmane wallaay dëgg la donc looloo tax euh, ñun ñuy ñuy ñu leen jàppale ci tournée yooyu noonu te am hmm. yaakaar ni xëy na ñoom bu ñuy yéegee au pouvoir euh, dinañ dinañ mun a peut-être li euh, nga ko en porter au pouvoir. Mm. ñun am ci espoir ak yaakaar ni xëy na ñoom bu arrivé mm. Khalifa Sall par exemple euh, damay joxe benn exemple man dama toog rek dégg Khalifa Sall dafa ay affaire bourse d'étudiants. Mm-hmm à l'époque man boobu maa ngi Sénégal nek UGB. Hmm. Euh, bi ma ko rek man ma déposé ben dossier euh, mairie Dakar parce que boobu maa don doon euh, lijjanti inscription pour jàng. ndaysan mais yalla xam ko dama ñu fi France faté woon ko sax. djéki hmm. jékki rek wa mairie bind ma mail. Hmm. ne ma da nga déposé won après dima ma may ben genre aide financière de 200 cent euros. sha allah sha allah. te yàlla xam na ko amul amul bralon amul dara. dëgg la. te guñu au pouvoir moo tax may ma am yaakaar ci ñoom. même Guy Marius Sagna doon wax sànq. Euh, gis nga ne de la faim bi defoon bi mu prison pour ñu wañu njëgu jaay bi li ñuy ñi jaay fofu non noonu njëkk yi yooyu yëpp c'est des choses xam dénonciation yi def nonu mm-hmm. euh je je trouve que ni y a du positif wallaay wallaay deug wallaay voilà y a y a du positif mm-hmm. après nak il faut allier tout mm-hmm. comme li nga wax rek intégrité moy jiitee rew du jang mm. mais ñooñu ñi nga xam dañuy ni ciblé. yag nga ko wax il faut ñu set sen parcours xol ñoy kan ak fu ñu jugee balaa ñu leen seetantal leen bu baax nga xam ne du ñu am euh, du ñu am déception ëllëg. wallaay dëgg la parce que boobu ba léegi bi Sénégal malheureusement président yi ñu fi cité yi ñu fi wax yi ñu fi amagum yëpp malheureusement ils nous ont déçus. Hum. moo tax euh, misère bi moo tax grand gi jël gaal gi. parce que hum. xam nga même dama koy seetaan même fii Europe am na hum. ñoo xam ne États-Unis laa ko gisoon. koo xam ne dafa dugg ci roue avion pour voyager. wallaay wallaay wallaay wallaay donc yooyu indi. waaw moo il faut il faut leur leur comprendre les les mom damay gis ni mom da ngay sànni xeer bu baax a baax a baax. non ñëpp laay sànni xeer dañu wara defal defar réew mi te du réew mi du ben côté de. gis nga li ngay gis nga li ngay wax ni non la daan xeexee avant 2012 avant 2012 la soppi doxine man benn côté rek la doon tiire opposants yi dañ leen di yeureum ba mu upp il faut ñu changer lutte bi ci biir opposition bi la wara tanné ñan ñoo wara wax ak ñu warta ta wax dëgg la ñan lañu wara jital du ku juk rek jital affaire bi du affaire guerrier de sëñ bi mhm. so gisé mhm. aussi limay waxone sank tuddu tudd mari Marius Sagna maanaam forme bi lay wax dang ko wara dang ko wara yok mhm. so amé structure ta gars gis nga gis nga wa passé biñu soxla soxlaa gis nga liñu dajalé ci xaalis magi magi Sall ci soir Sénégal ñuko def def wuñu Mhm. def ko ouvertement gars yi jël xaalis joxe. léegi nag mhm. rythme boobu mënoon nañ koo continuer di ko def pas kenn ñëw di ma wax ne man militant la dinañ def li mais xoolal ñëpp gisandoo ko noo xamante ne yow du militant mooy ñëw di wax ne ñun dinañ def lii waaye ñëpp a gisandoo bi ñuy wut collecte de fonds Pastef mhm. ay jàmbaar yu mag lañu ci bu ñu continé woon rythme boobu rek beneen yoon la bu bees booy fent politique dafa laaj fent yoon ku fent yoon rek am dam Macky Sall dafa fent yoon mhm. dafa fent yoonu victimisation ak yoonu dugg ci ruq yi ruq yi kenn daawul dem yoon bu ñu fent la bu njëkk ba loolu victimisation amul woon li ñu def Ablaye Wade defuñu ko Macky Sall dëgg la mosul toog di victimiser wu dañ ko daan topp def ko suu écoute di ko yàqal victimiser wul de ndax moom guerrier la léegi nag li beesoon te nit ki xam ne moom xam na waa Sénégal ni ñu amee yërmande ci ku ku sonn ndax filmu Génome bi ki gën a sonn rek lañuy faral sunu maam yi ñaari sët bu ñuy xeex wala ñett ki ci gën a néew doole lay faral léegi nag mu utiliser moyen de victimisation boobu wër fépp ne Ablaye Wade daf may lii li mu defoon Idrissa sek li mu defoon diw ak diw ak diw la ma bëgg a def gars yi commencé koo yërëm di ko jàppale mu dem ci sëriñ si sëriñ si yërëm si ko di ko jàppale dëgg la mais nax na leen. waaye nag def na lu rëy mooy mosut a xeeb kenn. ku ko mën a andil benn nit déglu na la. moo ko yóbbu ci rajo yi Sénégal yeeg télé yi ba mu jeexal leen mu dem ci rajo internet yi ba mu jeexal leen jàmbaar la de politiquement parler. léegi nag ñeneen ñi bëgg a ñëw nag dañuy war a fent yoon wu bees. victimisation bi dafa doy. moo tax man des fois ku ñuy dóor damay indi karawaas bi ma dugal ko ci ndox ndax mu gën a saf na na gaa yi fayu wala ñu sent fent wen wu bes rek mais tamit tollatuñu foo xam ne militants yi wër ci radio yi di wax li ñi def ni ngeen defoon ba gaay gis xaaliss bi ni ngeen ko dajale ñu tàccu len nañ ko continuer dimbali ñeneen wa Sénégal yi loolu moy fent wu bes loolu la patriote wara def di euh, yamale fofu waxtan wi di gërëm bu baax awakar euh, contribution bu am jariñ la def tay machallah allah di koy gërëm di kosan, sant di gërëm Ahmadou Diop tay nak amon na invité sax mais dafa daw quoi dafa daw donc xamna ñu dem ba suba inshallah allah ñu ñëw ci benen waxtaan di leen gërëm